Abdou Khadre Ndiaye maa ngi lay nuyu. ma maa ngi lay fay madame Moreau. voilà Abdou Khadre Ndiaye nga nekk expert en géopolitique euh, déjà ban analyse ngay def ci retrait bu Mali Niger ak euh, Burkina ci kuréel gi di CEDEAO. xam nga il faut ñu comprendre ne CEDEAO ko créé euh, fukki état ak juróom en 1975 dañ ko créé pour bëggoon que. état yi nga xam ne si ñoo ko bokk ñoo bokk histoire politique bokk histoire économique bokk aussi culture ak langue yeeg yooyu yëpp donte xam nañ na ay état lusophone a ngi ci ay état euh, francophone ak yëpp mais teewul li taxoon ñu créé ko mooy wallu économie bi gën a am doole loolu day tax aussi nit ñi nekk ci état yooyu di commerce ñu man di dem ak di mën di jokkalante di mën di seqante loolu ci jubluwoon bi ba ci biir gis ay guerre rek ay coup d'état am ñu ne nag léegi élargir texte yi nga xam ne ñooy régir CEDEAO pour mën a permettre CEDEAO mu créer instance yoo xam ne dañu mën a intervenir ci réew yooyu bu ñu amee problème ñoo xam ab président bu ñu gagné bu bañ a jóge ci nguur ga wala mu am coup d'état ñu war faa def transition pour far fa autorité civile wala ay militaires yoo xam ne retraite nañ pour le pouvoir politique ce sont les civils ñoo ko incarné les militaires dañoo war a nekk ci caserne yi assurer la sécurité des personnes et de leurs biens loolu mooy li nga xam ne moo am maintenant il faut nga comprendre ne CEDEAO aussi dafa am réew boo xam ne moo ci ëpp doole muy Nigéria cinquante pour cent population CEDEAO Nigéria nu dëkk soixante pour cent économie bi mooy PIB produit intérieur brut ci euh, CEDEAO euh, Nigéria ñoo ko détenir trois pays yi nga xam ne ñoom ñoo ko quitté il faut nga comprendre ñoom bokkoon nañ ci g cinq Sahel G5 Sahel mooy pays yi nga xam ne dafa amoon montée du fondamentalisme moo am ay jihadistes yu nekkoon foofu commencé di yàq réew yooyu di créer ay coup d'attaque di euh, mettre situation insurrectionnelle ci réew yooyu ba nga xam ne si ni ñoom dañoo créé woon li naan G5 Sahel Sénégal bokk ci woon waaye participé na à hauteur de un milliard sommet bu amoon Mauritanie euh, d'ailleurs euh, trois pays yooyu nga xam ne wax nga ko muy Mali ak Nigéria ak euh, Niger ak ak Burkina Faso ñoom ñoo décidé quitter ci CEDEAO wax nañ lan moo tax ñu def ko parce que nee nañ dañoo gis ne ñi nga xam ne si ñoo créé woon euh, CEDEAO ñu les pères fondateurs ak ñoo xam na si ay idée panafricanisme moo ne woon seen bopp dañoo gis ne ñii ñi nga xam ne si ñoo fi ne leader yi ñoom dafa mel ne. maanaam je veux dire les présidents yi nga xam ne ñoo nekk ci chef d' état euh, yu yu gouvernement yu gouvernement chef de gouvernement yi ne euh, CEDEAO dañoo gis ne ñoom idées yi ñu yor xalaat yi ñu yor dafa sori wuute trop ak xalaat yi nga xam ne si ñoo ñoo créé woon CEDEAO boobu mooy poñ bi njëkk beneen poñ beneen bi mooy dañ leen a soupçonné ne dañoo jàpp ne dafa mel ne puissance étrangère yi mooy France ak Angleterre dañu dañ dañ leen dañ leen influencé influence boobu am nag. chef d'état yi ñoom ñoo leen jàppale day mel ne may français de euh, ñooñu dañoo am ay nday wala ay baay yu nekk fii ci Afrique di leen jàppale pour euh, créer situation yoo xam ne dañuy yàqal état yi nga xam ne dañoo bokk ci euh, CEDEAO beneen bi mooy dañoo jàpp ne menace dafa am ci état yooyu menace yi bi amee assisté wul leen pour xeex terrorisme ak insécurité maanaam chef d'état yi nekk ci CEDEAO góorgóorlu woon ba jàppale leen ci assisté wuñ leen da leen a seetaan beneen bi aussi mooy dafa am ay sanctions yu am yoo xam ne normal lu jaarul yoon dëppoowul ak li nit di dundee dëppoowul ak yàq ak àlleefu doomu aadama yoo xam na dafay violer texte yi nga xam ne moo créé woon CEDEAO donc yooyu mooy euh, ñaxtu yi nga xam ne si ne ñetti réew yooyu seen yi ci def nañ ko jëmale ko ci ñi nga xam ne si ne ñoom ñoo yor CEDEAO. léegi est-ce que mën nañu wax ni acte bi ki ñi nekk ci ginnaaw moom mooy Russie parce que ñu ngi ci euh, joxoñ Russie euh, ban rôle la ci Russie war a jouer ba réew yi daal di quitter CEDEAO. xam nga adduna bi dafa am nu mu changé gis nga réew yi réew bu ci ëpp ab allié day gën a jox doole sa réew da koy gën a jox doole li naan influence. c'est ce qu'on appelle soft power parce que léegi réew mu am doole du question da ngay am population wala nga yor ay moyens financiers kese mais ni ngay mën a am influence ci yeneen réew loolu ay stratégie de coopération la ay stratégie diplomatique la donc de telle sorte que euh, Russie bi nga xam ne day xeex ak Occident euh, jàpp ne moom Afrique nekkoon na fi jamono yu décolonisation jàppale yenn réew yi pour ñu am ñu ñu am seen indépendance entre temps dafa amoon problème 91 parce que chute de mur de Berlin bi mu amee euh, euh, soviétique yi dañoo seen lépp luñ tabaxoon ci àdduna bi dafa yàqu seen système euh, ñu ñu ñu yàq ko léegi nag ñoom dañoo jàpp ne dañoo war am retour en Afrique retour bo xam ne dañuy fekk transition démocratique yi am wala réew yi nga xam dañoo nekk ci ay régime militaire ñu jéem a jàppale eh, ñooñu euh, parce que xam na ne France commencé nañ ko contesté ci surtout pays Afrique yi rawatina ñetti pays yi nga xam ne quitté nañ ñoom déjà boo xoolee euh, ce qui ya fa nekk seen euh, ambassade ya fa ne nit ña sax am na ay actes yu ñu parce que ambassade dafa nekk lu am solo ci am réew prolongement souveraineté am réew la de telle sorte que rupture diplomatique mën na am te rupture consulaire du am maanaam bu fekkee ñaari réew dañoo am problème mën nañoo woo seen ambassade le rappel à l' ambassade ay sanctions yoo xam ne c' est des sanctions minimes mais dem attaquer ab ambassade yàq la fa ne détruire ko ba ambassade ba ñu xool ñu koy rawale am na fii santiment anti français dégg nga ko fi léegi nag ñoom bi ñu retiré woo fran euh, euh, ku ku ku reer sa ginnaaw euh, la ñu si ñëw dugg biir Afrique te ñoom. aussi dañoo am ay ambition Afrique bëgg nañ fi am ay base étendre seen i base préparer seen bopp parce que xam nañ ne àdduna bi fi mu jëm àdduna bu doy waar lay doon te comme on le dit souvent qui veut la paix prépare la guerre. Euh, conséquences yi le fait que ñuy retiré wu yan euh, njeexital lay am euh, exactement. surtout ci côté njeexital yi maanaam mooy ci côté circulation des personnes et des biens. mm waaw njeexatal mi mën am mooy su fekkee ne da nga bokk ci organisation que ce soit régionale ou internationale am na lu ñu wax ne soo ci bokkee obligation li la war lii lay doon lii lay war a defal lii la li la war li li la war lii la maintenant conséquence bi njëkk bi mooy yow su fekkee da nga décider pour retirer wu donte xam na ne am na délai douze mois yoo xam ne ci lay retiré bi mën a effectif su fekkee ne nag euh, maanaam effectif na ci lay conséquences yi di doog a dal dëkk dëgg mais pour l'instant euh, mënu gunoo euh, wax carrément ne nit ñi dañ koy daal di sentir léegi léegi waaye li ci mën a am mooy li naan liberté de circulation des personnes et des biens day poser wu problème parce que nit ñi daan am droit d'accès à la mer bu boobaa day jafe ci ñoom accès aussi pour dem dëkk ak dëkk wala réew ak réew day jafe ci ñoom ak exemption de visa yi aussi day jafe exonération taxe yi day jafe retombée sur les prix aussi day daal di am affaire yi ñoom dañ koy commencer sentir parce que réew bi doon dugalante yow ci wàllu koom-koom surtout ci wàllu ay denrées de première nécessité yooyu parce que Sénégal réew yi ay réew frontière yu am frontière ak ñu réew mu dugg bi ak dem bi jafe rek day am répercussion ci dundu doomu aadama yi Euh, am répercussion aussi ci euh, nekk nit ñi. Hmm. Euh, léegi dañoo amoon ay carte d'identité CEDEAO léegi retrait bi ak carte d'identité CEDEAO yi naka lay demee exactement. waaw pour l'instant xam nga organisation bi su fekkee dañoo yor carte biométrique CEDEAO am réew bokk ci bu ci retiré woo bu effectifié rek loolu day daal di nekk loo xam ne si ne acte bi euh, parce que titre de voyage la lim la lim lim la mayoon nga mën a jóge fii dem fale te nga bokk ci réew ba retiré wu day daal di jafeeti autrement di que bis buñ ko acté définitivement rek li nga yor day daal di euh, maanaam dootu amati benn valeur boo ko defee euh, xëy na nag bu boobaa réew ak réew moo mooy mooy am relation beneen relation la buy am entre deux pays ce sera entre deux pays mais du doon ce sera euh, dans le cadre coopératif maanaam ci ñaaru organisation par exemple na nga xamante ni man ab Sénégalais la ma yor carte euh, CEDEAO mën a dem ci bépp réew boo xam ne fii dafa bokk CEDEAO te du ma yor visa bu boobaa réew boobu bu ca génnee rek léegi day il faut sa réew yow mën a am benn euh, coopération entre dans le cadre dans ce cadre là pour que euh, ñu mën a contourner un peu sanction bi mais bu loolu amul rek daal di indi jafe-jafe euh, même sax su fekkee da nga yor carte CEDEAO mm-hmm. est-ce que mën nañu wax ba léegi CEDEAO am na njëriñ est-ce que am na crédibilité surtout. non CEDEAO moom am na njëriñ ndax lu tax mu am njëriñ mooy. Mm-hmm. il faut ñu xam ne CEDEAO euh, biñ ko créer côté économie moo taxoon. te loolu joué na ci rôle bu am solo parce que réew yu ci bari tey seen économie ak seen euh, croissance bu yokkoo leen bokk ci CEDEAO moo tax maintenant leneen li nga xam ne si moo am mooy il faut nga xam ne réew yu aussi CEDEAO euh, am na réew yu amoon guerre am ay problème militaire am ay euh, coup d'état CEDEAO fexe na ba jàppale leen récemment Gambie bi mu amee bi Yaya Jammeh bi ñu ko gagné mu am na nu CEDEAO rôle bu mu joué Libéria am na rôle bu mu fa joué euh, am na yeneen réew yeneen réew yoo xam ne joué na fa rôle ba jàppale ci wàllu transition démocratique euh, euh, démocratique maintenant teewul aussi comme toute organisation am ay limites am ay faiblesse faiblesse yu njëkkee mooy monnaie bi ñu waxoon des koy créé muy éco ba léegi kiiwagul sotteegul euh, parce que Nigéria daanaka moo xaw a bloqué affaire bi parce que tamit moo ci ëpp doole beneen bi mooy aussi li nga xam ne si ne mooy ECOMOG mooy force yi nga xam ne si ne ñooy war di intervenir bu fekkee ne CEDEAO dafa war a intervenir à temps force yooyu amagul nañu war amee doole parce que ay six mille cinq cent hommes lay doon loolu par rapport ak euh, CEDEAO c'est insuffisant Euh, moyens financiers yi ñu war a am euh, beneen bi aussi mooy lii nii tey nga xam ne g cinq Sahel des ko créé woon pour euh, lutter contre la montée du fondamentalisme comme que xam na ne opération yi de defoon ci réew yooyu dafa échoué que ce soit opération épervier Serval et Barkhane Barkhane yooyu yëpp dañoo échoué produire ñu résultat yi loolu mu produire ban créé G5 Sahel G5 Sahel boobu bi ñu ko créé tamit parce que Euh, lu mel ne Mali Niger ak Burkina Faso ñoom créé nañ récemment l'alliance des pays du Sahel AES pour contourner un peu l'échec euh, du G5 Sahel et quelque part de la CEDEAO récemment donc boo xoolee am na ay signes yu annoncé woon que Mali ak Niger Burkina bettul nit ñi pour mu génn ci CEDEAO parce que commencé woon na ñoom teg seen i stratégie pour génn ci waaw parce que sëb la ko bëtt mu donc jàppal ne euh, CEDEAO lii nii su amee day montrer aussi euh, quelque part faiblesse am carence am aussi. voilà Abdou Khadre Ndiaye ñu ngi lay euh, remercier en tout cas bu baax a baax ci la disponibilité. merci maa ngi lay remercier. voilà ñuy fàttali expert nga en géopolitique jërëjëf. géopolitique jërëjëf.